رباعية في إخدام قير الورى بدا وفي كل سهر زيد ربه وفي سفر الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه ذوي الجلال والتكريم ci ndigalu Cheikh Mouhamadou xam ne moo fi Sëriñ Tuuba ñaan mu yàgg fi loolu te ànd ak ñi ñuy bokk di fi teg yëpp ci njiital ci nga xam ne mooy kilifa jotaay bi di suñu kilifa Sëriñ Mamadou Bakk ibn Cheikh Mamadou Fadil di ko siyaar bu baax di ko sant di ko gërëm ci taxawaay yi nga xam ne ñu ngi ko leer rek nga xam ne liggéey bi lépp teg na ci yoon ndax moom ku ko xam ku ne xam ne moom lépp moom rek la kon ñu koy santaat bu baax di ko gërëm di ko ñaanal mu tam mu yàgg yàgg liggéey maam ji la maam ji Serigne Touba rawat na ci liggéey bi nga xam ne moo doon lépp Serigne Touba kàddu yi sax sant rek doon ndax li ci motal wax Serigne Maam wax na ko comme kàddu cant weer ci turu sëriñ bi mooy liggéey bi mu santaane di njàng alxuraan ak xasida ngir bëgg ñu di ko tàmbali ci biir màggal ngir euh, sant la yàlla Serigne ci bis te Serigne Touba moo doon alalam lii di jëfam alxuraan mooy alali Serigne Touba mooy jëfi Serigne kon ñaar yooyu fii barab bi loolu rek lañ fi a def. kon ci biir loolu ñu ngi sant euh, Serigne Moustapha Mbacké monsieur Mamadou Diop nga xam ne moo doon yëkkati kàddu léegi te mboolem kuréel xasida yi ànd ko moom di ko def diir mu bëgg yàgg ci juróom-ñetti at wala juróom-ñetti at ci ren di ko sant moom itam di ko gërëm ci xeetu yi dañ ko daa wax rek maam Serigne Massamba ñëpp xam nañ di ko Serigne Touba féete woon ci liggéey boobu. kon nag boo ko ko tàbbi ci loxoom tam koy defee posture bu kese suñu xel bi ci gën ci ne lépp ko rek jëfi Sëriñ Tuubaa di gërëm it Sëriñ Xaali Jaxate mi nga xam ne moom ko sëriñ maam bu ci ci wàllu njàng bi xam ne fi ma sa nekkee Sëriñ Tuubaa ku ne bu weer wi tàmbee da ngay ne képp ku ne na jàng ñetti kaamil def ko addi Sëriñ Tuubaa dañ koy ànd di ko def tàmbale ci bis bu njëkk ci safar baax si bis bii nag ñu tàmbali ko diiru ñetti fan yëpp nga xam du rakk moom sant ci taxawaayam ak mbooram nag sëriñ daara yi nga xam ne ñoom ko ànd lii kat bu màggal gépp jagoon lépp baax te lii amuti dana am des su rëy dana màgg te sëriñ Tuubaa kat képp koy dàkk ku ne te dàkkee ko ci alxuraan na la wóor ne yow li nga koy dàkkee sooyoo kon nag ñoom itam ngi leen sant seen taxawaay di leen gërëm di leen ñaanal yàlla ci barke Serigne Touba wala ñu fi jàng ci alxuraan rek te def ko addee Cheikh Khadim yàlla na ko Serigne Touba noonu te ñoom koy yàgg def yàgg ci suñu moom gën leen dëmm kàttan ba luñ ci def ren rek bu dee ñu gën a yokk ñu ngi sant ñëpp di gërëm Serigne yi di gërëm wala ñi nga xam ne ñoom la ñu àndal ñu ngi di jàng si ci bis bi kon foofu rek lay jeexal kàddu yi ndax liñ ci waroon leer sëriñ na ko wax na ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh بارك الله رباعي في إخدام خير الورى بدا وفي كل سهر زيد ربه وفي سفر